ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dollino ay maqaam yàllaw aouzu billahi min asaytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa suriyataha min asaytaani rajimi rabbi aouzu bika min amasati sayatini wa aouzu bika rabbi an yahdurun يسر لهم بالتي تعسر فكل ما يسرته تيسر يسر لنا جميعها ما ينفعنا وكفنا جميعها ما يضرنا يسر لنا جميعها ما قد عسر فضلا وجملة ورا لي سقرا بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ñi ngi julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu kilifa diine yépp di nuyu it kilifa aada yi ci biir réew mi yëpp waaye di nuyu bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biti réew ak ci réew mi tey jii nag euh, ñu ñëwoon fii ci kilifa gu mag goo xam ne kenn dootu ko présenté ci mim réew Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom lañu ñëwoon ziar ko waaye ñëwit ngir bëgg a fas yéene seq ak moom waxtaan wu am solo woo xam ne jàpp naa ne incha allahu rabbi ñëpp danañ ko mën a jariñoo Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaare te di la jox sa wàccuwaay te di la ñaanal tawféex te di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi Sidna Ousmane ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu kilifay diine yi ci réew mi ak kilifay aada yi ak téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ni aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di la dalal fii ci kër gi di dalal mboolem ñi nga àndal fii ci kër gi di la wax ni bisimilah mën nañoo jublu ci waxtaan wi. Euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima Euh, ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax macha allah barakallahu euh, ñu fas yéene ubbi jotaay bi euh, fas yéene tàmbali ko ci mbir moo xam ne jaaxal ñëpp siiw lool ci jamono ji ñu toll nii waaye doy waar lool ci àddina bi yëpp rawatina askanu Sénégal Cheikh Ibrahima li ñu jaaxal mooy feebar yi nga xam ne jamono ji ñu toll nii bari na ci réew mi lool rawatina ci ndaw ñi feebar yu metti yi bu dee ci soxna yi la feebar yi bopp yu metti yi bari na bu dee ci góor ñi ñu ci bari bari dañuy bëgg tu tànk duñ ko mën a am xeetu feebar yooyu Cheikh Ibrahima lan moo koy sabab. waaw wax nañ ni feebar bu mu mën a doon Seydina Ousmane. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni seen boroom boole na leen ak yéen lay faj feebar ba xamal na leen itamit la koy sabab xamal na leen na ngeen di def bu mucc ci ñett yëpp ñëw feebar boo gis li koy faj ñëw na la koy sabab nit ñi mën nañ koo xam nañuy def ba mucc ca feebar ba nit ñi mën nañ koo xam suñu boroom nag dafa jël mbooleem feebar yi am ci biir nit ñi aar nit ñi ca feebar ba armu baleen suñu boroom joxoon ni leen jëfandiloo jëfandikoo leen ko yéen nit ñi ngir mucc hmm. nit ñi moom lañ dafa tegg bëgg jëfandikoo leneen loolu arme boobu bari na feebar boo gis nit feebar ko ci lum lekk la sababoo yonent bi ni yéen nit ñi yàlla nee na balaa kenn lekk lenn na wax bismillahi rahmaani léegi lekkatuñ lenn ba léemu li ñu lekk bi ci topp yonent bi ni yéen nit ñi yàlla nee na li ngeen di lekk su dee yow Seydina Ousmane da rey ab gàtt sa kër Seydina kan mii di sab dëkkandoo bu lekk gàtt bi bàyyi ko <laughs> doonte ab pooju ginaar nga am sax supp ko xet gi xeeñ ko yonent bi ni nee na boo ko munta jox ci yàpp yi na ko musal ci ñeex mi léegi nag senegal da gis ku toggee ginaaram ca Tambacounda laata mu ko yekk waa kër gi lekk ko waa ndëkkaaroo koy njëkk a gis waa kër gi Mm-hmm. nga boole junniy xel ak téeméer boole ko ci genn ak lekk goo xam ne jotaguñ koo lekk sax nit ñi di ko waxtaanee lu nekk ñu def ko ca lekk ga pare nag nga jox ko wakkër gi ñu lekk ko première danger bay ngi noonu deuxième bi mooy ñu lekk ko te waxuñu bisimilah rahmaani rahim mm-hmm. mu dugg seen biir indaale fa lekk ga day indaale catul bët ak catul làmmiñ nit ñi gis giñ ko gis ak wax giñ ci wax teew ko jooju ndax xañ na ci nit. déedéet. boo ko bëggee dëkkee dunde maa doo faatu da ngay faatu faatu gu gaaw moo tax lekk yi ngay gis nit ñi di ko publier door koo lekk te kenn ku nekk di ko gis partout dans le monde ci àdduna bi bokk na ci li yokk seeni feebar. neel benn. benn. ñaareel ba mooy doomu aadama yi ci boppam la leen yàlla nëbbuloo woon ci seen bopp. hee eh, yéen jigéen ñi muur leen seeni cër te ngeen téye seen kàddu ñu toll ci jamono joo xam ni jigéen ñi dañoo murri seeni cër ba pare yemuñ ci mudd gi waaye di ko wane partout dans le monde ba pare nag ubbi seen làmmiñ yi lenn lu ne ñu wax ko lu ñoro lu ñorul mooy yii ñu xewal ñoom ndaw ñi mu li wax ay tiktok ak vocal yu whatsapp ak loolu lépp ci danger bi lor doomu aadama la bokk ñu koy manipuler ci ñàkk xam su ko defee nit ñi dañoo nekk ci tolof tolof yoo xam ni genn wàll gi ñoom ñoo ko yëbbee seen bopp ndax moytootuñ xamatuñ lu ñu war a moytu xamatuñ fu ñu war a dugg xamatuñ fu ñu war a génn xamatuñ lu ñu war a def xamatuñ lu war a bàyyi loolu soo nattee adduna bi ci xam-xam da xam nit ñi li leen di rey ñoom ñoo xabtalu jëm ci muy bët ak làmmeñ sëñ na Ousmane ah Cheikh Ibrahima Ndiaye jërëjëf euh, leeral gi am na solo lool Cheikh Ibrahima euh, kon naka la nit di mën a moytoo bët bëtit lan la mën a indil doomu aadama bi ci ay gàllankoor ak ci ay jafe-jafe kon day mel ne Cheikh Ibrahima ndaw ñi kon ñi ngi ci danger bu rëy rëy ndax boo xoolee yi nga tudd muy lu mel ne TikTok ak vocal yi WhatsApp yi euh, kon loolu Cheikh Ibrahima ak fii ci jamono toll nga xam ne doy na waar kon loolu euh, lu yéeme la Cheikh Ibrahima loolu naka nga nga ko mën a jàngate kon. waaw phénomène boobu dina dem ba nit ñi bàyyil ko seen bopp ndax nit ñi jamono ngi ñëw ci kanam tuuti dinañ seetlu ne ñi def ñooñ loolu ñëpp lañuy gàtt fan. Mm-hmm. phénomène bii. moom moom jërul tere kenn ndax du jëm kër ci diir di nga gis ni nit ñi koy def ñëpp lañuy gàtt fan. kon daal su ma la déggee ko ko ci bàyyiwul sa fan mën naa gàtt lool. moo xaroo yam. allahu akbar. bul def lii xamul tax ñu terale ko nga def ko te ma wax lañ la danger yu toll nii moo ci nekk danger yooyu du nekk ci nit kuy gudd fan. ndax maa ngi dégg démb rek sunu mbokkum taalibe mu baax a baax ñu koy wax euh, mbay sàppar sàppar Euh, semaine bii weesu yi yaakaar naa ne am na ci seen soxna soo xam ne it moom it euh, taalibe la euh, moom it génn àdduna te ñoom ñëpp ci wàllu woowu bokkoon nañ ci ñi ñi ci doon yëngu kon Cheikh Ibrahima loolu danger bi foo ko foo ko takk kon weesu na ko. waaw li ci bëgg xam daal mooy ñoom ñu génn àdduna yal na leen yàlla xare àjjana. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. nañ wax ak ñi def ci àdduna bi wala ñoo génn. dégg wax bi dama ne la lépp lu jëm ci wanekaay yooyu nga xam ni ñoom ñi ngi ciy wane seen cër yi di ci wane seen lekk gi ak seen naan gi te lislaam tere leen loolu ñu ci nekk ñu ngi xaru te it boo mënee tere sa soxna lu togg bala la ko jox wan ko nit ñi nga tere ko ko soo mënta bàyyi nga jéggal ko ndax du yor du du yem ci lor boppam waaye yow mii boroom këram dalay loraale saafara jur na jàngoro nag mag ñi yàgg nañ ko wax te ndaw ñi dégg nañ ko yaa ngi dégg <laughs> coronavirus bi dañ la daan wax ni la mag ñi lay rey du rey xale yi waaye xale yee ko yenoo ci àll bi indil ko mag ñi dégg wax bi yow mi moom sa kër yilif sa soxna muy def lu mu togg jël dugal ci internet bi ñëpp gis bu ko munta bàyyi ma ne jégal ko ndax lorul boppam yow donc yow miy lekk-lekk nga dala ciy loraale day jar nga nga nga jégal ko kon Cheikh Ibrahima danse bi ci nekk kon bari na lool wala déggoo li ma la wax ci yonent bi nee na boo toggee tam mënoo cee musal nit ki ñeex mi dong des ci na ko yóbbu këram pour mu mucc waaye léegi boo ko wanee nit ki te mënoo ko see mucal musal foo jëm wala dégg wax bu baax hmm. Hmm? luñ tere la ñuy def maanaam luñ tere lu baaxul wax naa la sànq ci ngoon bi ngay door a ñëw ñuy waxtaan ci diine man la am na saxaaba boo xam ne biir bi ma doon metti biñ ko yenee yóbbul ko yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko xoolee dañu ko lan nga mujjee lekk mu ne ko sama soxna defaroon na ma ay seel ak resin moom laa mujjee lekk yonent bi ni ko bi nga koy lekk da ngaa fàttee wax bisimilah moo tax nga bokk ak iblis li loxol iblis laaloon nag moo dugg sa biir bi moo tax muy metti allahu akbar waa léegi yow lekk goo xam ne yow yaag dëmm yeeg junne yeeg nit ñi ñépp ko bokk gis door nga door koo lekk foo jëm te ci jamonoy mag ñi boo musaa na fat ci biirum ndaje boo muytuwul doo wér te loolu ñu dajaloo di lekk dong dong la woon ñu dajaloo di lekk fukki ñu bokk bool te xamante rek kenn fot ci mag ñi ni kii de bu moytul luñ ko mën a faj ndax lim lekk bët bi ko gis lañ dul xam bëtub ko mu mm-hmm. te ña daje matul ñeen fukki nit waa léegi nag boo lekkee loo xam ne wër na àdduna bët yëpp xool ko bëti naar yaag tubaab yaag partout dans le monde nga door ko lekk te kenn ku ne def ci xelam foo jëm Seydina Ousmane nañu xonte dëgg yooyu nañ ko teg ci suuf daa baaxul fii ak nag ñi ngi dundee noonu ñuy dundee balaa kenn lekk lenn ñëpp gis ko dinañ am feebar yoo xam ne duñu xam fu mu jóge ndax duñ dul xam ci nit kam jóge moo tax du neex jërëjëf euh, Cheikh njaay Ndiaye euh, laaree lii am na solo kon euh, nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax doon na mbir moo xam ne baaxul kon dégg ngeen ni ko sang bi waxee Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan kon nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax Cheikh Ibrahima accident yu bari yi rawatina ndaw ñi loolu lan moo ko sabab. accident yi mi ngi jóge ci ñaar. yenn yi sayaatiin yi ñoo koy def loolu moom borom xam-xam yi loolu leer na leen accident yi suñ ko nattee ci xam-xamu baatin li ci jóge ci ci ci dogalub yàlla bariwul lu ci bari day am sabab moom accident yi moom accident yi waaw day am sabab yu mel noonu ak daa xaw xóot waaye accident yi daal bu xasaan musaana bari ci réew mi mag ñi daan nañ ci def ay ñaan daan nañ ci def ay sarax mhm. ndax xam nañ sabab bi te dogalub yàlla ñaan munu ca dara sarax munuñ ci dara waaye buñ ko musaan def gis mu wàññeeku mhm. kon am na ay pexe waaye yooyu dafa xaw a xóot mhm. daal nit ñi bu ñu moytoo cat te am kaaraange yàlla mën na leen musal ci loolu ah ndax euh, euh, dogguma la sang bi Cheikh Ibrahima euh, may sapar sapar mii ñu doon wax léegi euh, yàlla na ko yàlla dolli njëggal déggante ne ak yow ci guddi alxamis gi euh, téléphone. waaw waaw yow mii yaa woo jox ma ko. Mhm. waaye it suñu waxtaan lu gàtt la ndax moom dañu woon samedi dinaa la seet si. ma ne ko maa ngi am laaj yu ma la bëggoon laaj sax du ma la gisee mooy sàppar sàppar gi laa bëggoon a xam lu muy firi te nga mayoo sa verre yi. ma sàppar sàppar gi Moustapha Cissé Lo moo ma ko tuddee woon ci biir mbooloo lu muy firi waaye veer yi nag da ngay bàyyi ba ñëw samedi ñu négocier ci loolu la waxoon. loolu la waxoon ndeysaan. waaw ni bi ñaanal ma bu baax nag ci daamar ji ma ni ko dinañ la ci ñaanal waaye mbay na wut kaaraange baat boobu laa ko mujjee wax dañoo xëy suba yaa ma ko tàggee yàlla ko yàlla. woyofal suuf ci kawam taxare ko àjjana amin amin yaa rabbal alamin mm-hmm. amin euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, kon dañuy euh, continuer waxtaan bi rek am na solo lool mbay yàlla na ko yàlla jéggal te woyofal suuf ci kawam léegi Cheikh Ibrahima kon yooyu ñu fi lim léegi ku ci bëgg mucc mu mel ne bët ak làmmiñ ku ci bëgg mucc Cheikh Ibrahima yan ndimbal ak i jàppandal nga ñu ci mën a dimbalee euh, maanaam ku ci bëgg mucc fan ngay jaar. waaw bët ak làmmeñ doy nañ waar doy waar goo xam ni Sëñ Tuubaa bind ci xasida yi nii bu ngeen xamoon boroom bët yu ñaaw yi ak boroom làmmiñ yu ñaaw yi. man hmm. ngeen leen dajale tëj leen ci néeg wutal leen ab imaam mu leen di dundal ndax dansé guñ dansé ci seen biir xam nga loolu dansé na kon. Hmm. doomu aadama itam des fois mu yóotu loo xam ni gënul ci moom nett naa la ci ab xissa léegi sama benn taali boo xam ni rakkam maa ko joxoon tur yàlla mu koy wedd te bàyyam walliw la woon magam bu góor boroom alal la woon fii ci réew mi lool waaye munta am doom fu ne ñu yóbbu ko fa muy ñaanlu doom keroog bi mu fi ñëwee fii ci sama kër dama ni ko man de mën naa la ko ñaanal ba mu nangu waaye duma la ko ñaanal waaye nag boo jógee fii ci man bu ci ñaan lu waat ndax bu gënoon ci yow ma ñaanal la ko bi mu fi jógee xam naa doom ja koo ñor mu dem ci ak nitu yàlla koo xam ne man xam naa kooku fay ko ci ab xaalis mu duggal ko xalwa ñaanal ko doom ba ñu defee ñetti weer ñeent soxna si jël ëmb mu ñëwaat fii ba ci man ni ma sama ñaan nga ma doon ñaanloo kat nunguwoomu ko woon ñaanal waaye gis naa ku ma ci ñaanal ani ko kala ci ñaanal tur yàlla wam lay ca ñaanale mag ko jox waaye bu ca xamoon li ma ci xam du la ci ñaanal ba mu amee juróom-ñetti weer ak lu teg tuuti ca la soxna sa mucc doom bu góor ca bisu ngénte la hmm. ca waxtu tàkkusaan la jël benn otoom boo xamante ni mooy oto yi kilifa yi di yor vévit yu mag yi mu jënde woon ko soixante-dix millions def ci ab añ di ko yóbbul waajuram wu góor muy añu ngénte li day dawal oto bi ba ci yàgg ci tëli bi oto bi taxaw nit ñëw ubbi bunt bi fekk ko mu faatu allahu akbar waaw man gisoon naa ni bu fiy indi lu ko wutu mu koy wutu bi mu ñëwee di la si waaw bi mu ñëwee di ma si xamoon nga nekkoon loolu gënul ci moom moo tax ñaanaloo ko ko waaw ñaanal ko te gisoon naa ni bu fiy indi dara lool di ko wutu moo tax dugguma ci fa ma àggoon bay gis lool nag sama tali bi ko ñaanal gisul loolu moom muy jàpp ni waaj na dàq ñaan mhm. dégg nga wax bi <laughs> waaye li ma la bëgg xamal mooy nit des fois mu yóotu lu gënul ci moom loolu dëgg la ni ngay duggee ci loo xamul mhm. noonu ngay yóotoo lu gënul ci yow moo tax ñuy ñaanlu tamit war a teey ci li ñuy ñaanlu ndax ñaan kenn du ko forcer mhm. yooyu daa baax ab sëriñ xam ko maanaam suñ boroom bu la ubbi lagul kiiraay yi bul manipuler mbirum nit ñi ndax nit ku ne dafa am système bu boppam bu mu bokkulewul ak moroomam hmm, loolu nag dimension xam-xam la. dimension xam-xam la. waaw loolu dimension xam-xam. Mhm. waaw su ko defee daal li ma bëgg man di ko sàkku ci ndaw ñi mooy ñu moytu ndax toll nañ ci jamono joo xam ni dañoo war a moytu. te boo xoolee réew mi nit ñi dañuy mel ni ñu sóobu ci géeju njàqare <laughs> mel ni ñuy daw ci yoonu fitna te leen ko yóbbee lépp seen biir la jóge te liy jariñ nit ñi dañ ko wan ginnaaw topp ci loo xam ni mun leen a jariñ dara fi ne ñi ngi toll ci aaxurisamaan jamono joo xam ni boo ñëwee ci man di ma ñaanloo wërsëg li yàlla ni mooy maye wërsëg bu ma la ko joxee di la ci ñaanal wala ma ñaanal la ci yow doo ko gëm te doo bëgg mu nangoo foofu mm-hmm. waaw yow daal da bëgg di di di di di di yore soow ak yori mbur wër dëkk bi di sarxe lu nga dugg ci te suñ boroom dafa la wax ni la lii boo ko defee am xaalis soo ñëwee may la li njëkk a wax ci kaddu goo xam ne nit moom la war a njëkk a gëm muy kaddu yàlla di alquran nee na laaye ji boo ko sikkaree nii am xaalis hmm? nga gis ma ma yorub xaalis mu weex tàllata te moom lay sikkar waaye su ma la ko waxee ba pare ibliis day jax-jaxal sa xol weddi loola ko gëm loola leneen loo xam ne loola dara du ci dëgg loo am def ko ci loolu te doo am li ngay sàkku loolu it ñu wàññi ko hmm. te wàññi fen yu bari ci internet bi ku munta gis ak dee mënoo gis deewu jàmbur wallaahi xëy suba wër ku ne nga ne gisoon naa ba muy dee yàlla dañ ma doo ngay dee yow koy waxal ni ñi kañ ngay dee moom moo important ci yow di mhm. waaw te ku fi neeti gis naa bàyyi jàmbur day dee waxtu sàngam demal police kalaame ko ndax li ko rey waru ci génn di moom yëpp ay xeeti caaxaan la ak ay xeeti tappale yoo xam ne jëmul kër mm-hmm. nit ñi nañ maandu yàlla da leen a maandu loo yonent bi yàlla mayoon sax ni booy dem ca xare dina gis sag dee mus ko wax kenn ba yonent bi lim ñi war a yor drapeau bi ni jox leen diw su ko diw mënatul a téye ngeen jox diw mm-hmm. su ko mënatul a téye gi mooy day faatu ndax xam na ni su dul woon faatu da koy téye ngeen jox diw lim ba àgg ñoom ñëpp néewu leen ci kan tey dee te yàlla waroon na ko seenug dee kon deeg doomu aadama lu ñuy wax loi bi interdit na ko médecine interdit na ko diine interdit na ko yooyu nag dinaa ci waxtaan ak kilifay réew mi ñu arrêté ko ndax dina musa indi problème boo xam ni du baax ci nit ñi. Mm-hmm. ko gisatig dee na ko téye. te wax sa dee bopp dégg wax bi hmm. wala déggoo ko dégg naa ko bu baax ku gisati deewu jàmbur te kenn gisu fi deewu kenn dañuy fen rek waaye ku ci gisati deewu jàmbur na ko téye te wax sa deewu bopp sa deewu bopp moo la concerné waaye deewu nit ñi sa yoon nekku ci dégg nga wax bi hmm. ñu continuer waaw kay euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima li ngay wax dafa am solo euh, lool Euh, macha allah ndax euh, jamono ji doy na waar euh, comme ni nga ko waxee waaye daal comme indil nga ci nit ñi ay solution yu am solo kon alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Ibrahima wàllum rab ñi rab jàpp tey bëgg nañ nga dimbali ñu ci wàllum rab ndax bari na ñoo ñoo xam ne dañuy dem ci ay sëriñ ñaan rab moo leen jàpp rab am na Cheikh Ibrahima waaw xanaa xamoo ni ñi rab jàpp dëgg-dëgg yow gisagoo leen man gisaguma ñi rab jàpp dëgg-dëgg. gisagu leen de ñi nga gis nii mooy ñi nga xam ni ngelawul seytaane moo leen dugg ñi crise ka nekk nii te dafa ko waxtu waaye ku rab jàpp dëgg-dëgg Seydina Ousmane bu ñu ko indiwoon fii nga samp soo xel daw. waaw ndax bari na ci ay euh, jamono jii ñu ñu toll ñuy gis ñi ay jigéen ñuy daanu rawatina élèves yi. waaw loolu daal bëgg nañ ku ñu ci gën a leeral daal. man maa la wax ni la. Mhm. fii ci Ndakaaru bari na kër gooy romb mu rafet lool suufu kër ga ab sosalang sa ñu yeew fa nit. allahu akbar. waaw. ñi rab jàpp dëgg dëgg dëgg dëgg yow gisagoo du leen gis mukk réew mi nag lu ne dafee nekk waaye lépp duñ ko wax de te ñi rab jàpp dëgg-dëgg ay baadoola juruñu leen man damay yëngu ci ñaan nga xam ne tey euh, ku rab jàpp dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima ba ñu yeewu ko ba mu ñëw su ñëwee nga fajal ko loolu ku rab jàpp dëgg-dëgg melokaanu rab lay yor dootu doon aadama doomu aadama yi nag duñ ko mën a gis. am na ci nit ñi wax naa ne la bari na kër goo xam ne suuf kër ga sosoloŋ ca wala bu ñu dul tijji mukk ma fa. am na fii ci ndakaaru gii nit ñoo xam ne kaaf lañ leen defaral luñ lekk ak luñ naan fa lañ leen di fekk duñ génn jëm fenn ay rab leen di jàpp waaye seen melokaan yow buñ ko génne woon fii même ñi nga am ngelawal seytaane muy jigéen ñii di kiris bu ñu leen gisee dañuy daw ñooñ ñooy jëflanteeg rab yi ñooñ la rab yi jàpp. ñooñ nag sëriñ bu leen ñimee jege sax dafay ëmmaguloo santuma laa ku leen ku leen sañ a taxaw naan dañ leen di faj waaw ñooñu la kilifa yi di faj loolu nag léegi dañuy xas ci réew mi moo tax nit ñi tiit kilifa goo xam ne da nga jur loo xamul lu mu doon daa bëri ci néew mi li ko sabab na xam nañ ko waaye duñ ko mën a waxtaanee ci débat yu ndaw yi waaye ñarab jàpp dëgg dëgg dëgg dëgg yow mi tegu gu leen bët seen imaan dégg wax bi li ma la bëgg a wax dégg ko. dégg naa ko baax. waaw ñi jàpp dëgg dëgg man ne ñooñu tegu gu leen bët ñi nga rawal seetaan a jàpp nag gaa yi ne ci di jéem a ki di di leen sangataka yooyu noonu ñooñu moom bari nañ ci dëkk bi waaye loolu neex na dindi. waaye saa waaj a njàngoon euh, kank kakkee ji moom lañ koy wax. Mm-hmm. waaw ci olof ñu naan ko kakkaaji kakkaaji mooy junni bu la duggee dëgg dëgg dëgg saa waay di nga xam ne lii sax gone du ko faj te am na ay kilifa yoo xam ne ñi ngi ci réew mii am ay doom yoo xam ne rab jàpp nañ leen ñu tëj leen ciy kaaf ndax tiit ñoom seeni baay sax ñi mawuñ leen asantuma laaj sëriñ su ndaw si foofu la bëgg ñu fay waxtaanee indi ndimbal ci loolu waaye yii ngay gis nii da xam ni ku jàngul dara sax mën na ci dara loolu moom ay jigéen ñi seenu sàgg na tax rek loolu di leen dal sëñ Ousmane. allahu akbar jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye euh, macha allah kàddu yi am na solo lool Cheikh Ibrahima euh, xam-xam ñu ci bari bari dañuy wax ne ñaar la euh, comme Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran naka la demee ak alquran ak geneen fànn gi nga xam ne it ñaan xam-xam bu ñuul la. ndax damay dégg ñuy wax ne am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee li mën a dindi seen jàngoro wala seen feebar mën na am du nekk ci biir alxuraan wala boog doo ko mën a jëfandikoo ci alxuraan am na ñoo xam ne xam-xam bu ñuul moom ngay mën a dindee seeni feebar. waaw xam-xam bu ñuul xam-xam bu weex sulmaani yu nuuraani yu yooyu yëpp soo ko dajalee. xam-xamu leer da leen di suul ñoom. xam-xamu leer da leen di suul. waaw xam-xamu leer boo ko bëggee dégg muy muy nuuraaniyu loolu xam-xamu yàlla la yàlla nag lum xamul dafa amul. moo tax boo déggee ñu naan la lii nitu yàlla mënu koo faj c'est-à-dire dañ laa bëgg wax ne lii yàlla mënu koo faj loolu moom weddi ko ndax nitu yàlla wa annal quwwata lillahi jami'an ci kattanu yàlla lay sukkandiku di def di dindi yaa ngi dégg wax bi junne yi ëpp xam-xam ci monde bi bañ leen dajalee di leen defloo loo xam ni dañ leen koo bëgg a defloo ci xam-xam mm-hmm. ñoom nee nañ mën nañ ko waaye temps bañ joxee dafa yaatu kenn nit yàlla moo ñëw ni man de su ma ko doon def ci ndigalul yàlla du mat xef a xippi loolu yàlla àtt na ci àdduna bi yàgg ci jamono Suleymaan ku ñuy wax asix bun balqiya te jamono yee moom moo fa nekkoon di werd basmala mhm. moom moo def li Souleymane soxla woon ci ndigalul yàlla siis bi ñëw tege mboolem junni yëpp mënuñu woon lam def mhm. te junne yi xam-xam bu ñuul lañ daan jëfandikoo mhm. yaa ngi dégg kon xam-xamul leeruk alquran dafa yëmul ak benn xam-xam booy dégg ci àdduna nitu yàlla itam kon xam-xamu leer alxuraan moo ëpp ci ci xam yi. ci xarnu bii ñu nekk muy adduna. alxuraan dafa ni. Mhm. wala qad fii sabuurin min ba'di zikri anna al arda yarisuha ibaadiya yàlla nee na dénk naa adduna ñi am xam-xamu luñ fi munta lijjanti leneen mënu ko fay lijjanti. ki yàlla li muy xam. keneen ku melul ni moom munu koo xam dama fay amoon benn malaatu médecin médecin boo xam ne nag yàlla daa def opéré lay def opéré <laughs> mooy liggéeyam fa yàlla mu am tawat yoo xamante ni si ni seen machine yi mënu koo direct tam médecin yi xamuñu lu doon waaw yàlla di ko womat di ko jaarale ci gars yi muy yéeg ka daanu ko jóge ñëw nag ba agsi ci man far keroog moom ñëwee ma ne ko saa yow da ngay opéré mu am ma ne ko ndax ab xaal buñ la ko joxoon nga opéré ko mën nga koo ñaw def ci médicament ba du nëb moom ma loolu de mënuma ko ma ko biirum nit mu ne ma mën naa ko ma ne ko xam nga ni mënoo biirum nit daa am lu ko man lu koy def rek ko ci yow mhm. ma ne ko li la dal lum doon mu ne ma xam ma ko ko lu tax bu nitu yàlla yi dee faj leen ni yéen médecin yii ngeen bëgg ni loola mënu ko yéen ko man te yow la dal xamoo ko mu ne ma ñun waxuñu mënuñu ko de dañ ne fajin yi bokkuñu ma ko waaw ah, loolu la leer waaw ma ko li la dal nag du lu bët ak xel di ànd bokk dindi ko boo ko bëggee xool gis ko da teg sa bëti seer yi fële te xooli sa bëti xol gis ko maa ko faj ba mu wér mu jiblu ci man doon sama taalibe parce <laughs> que waaye yàlla përeekul de ma am fi feebar bu ma la jël huit gars yi yan ma yóbbu ci moom nga xam ne foofu mbirum yàlla dafay feeñ <laughs> waaw dégg na rek yàlla yaata <laughs> di ah waay waa ji góor gi xanaa la ma la ma yàlla tegoon rek la la tegaat waaw lii la dal nag lu mu doon man ni ko man de waaye sëñ xam nga ne bu ma ko xamoon du ma jóge kër ñëw fii moom daa dégg yàlla mu ne ma li yàlla tegoon ci man ba xëmm ko tey gis mbooleem feebar yi dal nit ñi yow nga gis ko xamoo ko loolu la la yàlla teg mboolem leer gi nga yor di ko orienté mënoo cee gis la dal allahu akbar man ma nag noonu la yàlla y séddalee kon kenn ku nekk na nga téye la nga yor te téye ci boo ci ànd yàlla rek dimbali ci nit ñi boo ci ànd ak yàlla mën cee dimbali doomu aadama yëpp keroog la ma dal du ma ko waxee wuru woon ak moom damay fàttu fa yàllaaw allahu akbar dégg wax moo tax nit du weesu fi ko yàlla yemale Sidina Jibril li muy rëyu rëy cër keroog bi ñuy rëñaan moog yenente bi daa ñëw ba agsi ni ko fii laa yem te lu yàlla jox yenente bi moom la woo yónni ko ko waaye ba yàlla seet ba yonent bi seeti yàlla dañ ko fii laa kon lu rek am na fa ko yàlla yemale mhm. am lu fa waxaloon seen Ousmane mhm. Mhm. jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima macha allah waxtaan bi am na solo xam naa sax euh, euh, waxtu wi moo ñu xaw a xoj xoj nii waaye alhamdulilahi rabbil alamin ci liñ fi jot a dégg lépp di ñaan rek suñu borom may ñu ak dégg ak topp Cheikh Ibrahima xam naa bala ñu tëj genn kàddu rek ndax damay gis euh, jamono ji ñu toll nii euh, salaatu ala nabi yi euh, damay gis ñu di ci ay sëriñ su bari di ci joxe ay ay tegtal ci ci ci ci internet bi loolu gan salaatu na bi nga ngay mën a baaxe mbooleem ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci biti réew yépp Cheikh Ibrahima. Uhuh. salaatu ala nabi dafa yaatoo moog alxuraan na yam salaatu boo ci dégg baax na am na salaatu bu ñuy wax salaatul fatiha baax na <laughs> am na bu ñuy wax sallallahu ala muhammadin baax na allahuma salli ala sayyidina muhammadin baax na salaatu ala dafa yaatu bari ay tëggin waaye bépp boo xamante ni si nit toog na ca waxtu wa mu toogee di julli ci yonent bi teewal xolam lam hmm. ñu sàpp dina ko am alhamdulilah kuy jull ci yonent bi di ngistal nag ba adduna yëpp déggoon li ngay waxit fi nga toog doo fi bougé hmm? waaw mooy robinet boo xam ne branche la wuñ ko ci robinet ci ci ci forage bi nga tijj ko di di di root nga xam ne nit ki euh, bala moo am dara ci salaatu ala nabi faaw mu teewal euh, xolam waaw faaw mu teewal jëmmam sell faaw mu teewal xolam hmm. ndax nit du alimenté wu ci xelam ci ruuxam lay alimenté wu te ruux nag capacité bi muy branché woo ci xol lay branché woo waaye du branché woo ci mu xel waaw moo tax booy def da nga yéene mhm. boo xesee ba yéene nag toog rek boo commencé door mu dikk yéene ji nag bu duggul jëf ji duñ ko àtte si na Ousmane jërëjëf jërëjëf jëf jii duñ ko attee jërëjëf si Ibrahima kon euh, sa kàdd yu mujj ko defee ñu yëkkati jotaay bi ba yeneen jamono incha allahu taala waaw kàdd gu mujj gi mooy di ñaanal mboolem doomu aadama yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala dimbali leen génn leen ci njàqare ji ndax adduna bi tiit nañ amin wallahi waaye nag bu ñu jëmee ci jaamu yàlla te ragal ko njàqare li mën naa wàññeeku. alhamdulilah. ndaw ñi itam am nañuy soxla ndax foo toll da dégg li ci biti lépp mooy soxla nañuy liggéey ñoom it gis nañ ni nee nañ diina ji jaxasoo na ci ñoom lool bëgg nañ ci ay leeral. Mhm. yàlla na yàlla defal leen tawféex ba boole leen ak ay imaam yu mag ay sëriñ yoo xam ne dinañ leen mën a leeral ak ragal yàlla jiitu ci ñoom. Mhm. loolu mooy kàddu yi may dénkaane. waaw ah, kay jërëjëf euh, mbokk yi ñu doon seetaan yëpp. Euh, ñu ngi euh, jéggaluwaat bu baax a baax a baax ndax waxtaan bi neex na lool macha allah euh, waaye waxtu yu moo ñu xaw a xoj ba daanaka rek li ñu amoon ci ay minute jeex na kon dañuy yëkkati jotaay bi ba jeneen jamono incha allahu taala ñu ngi ziar bu baax sunu cameraman moom tamit di ko nuyu te di ko jox ci waayam liggéey bi rafet na lool macha allah mbokk yi wasalaamaaleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. ci barkeb say xi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bisimil barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bisimil barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama